birthday to you. Happy birthday to you. Lucy Bonnet. Lucy Bonnet. mu doon bàjjan. ndeysaan. ñoom day borom xol bu rafet. ndeysaan xol bee ndaw nag. merci ah. beaucoup. kay euh, ma ñoom dañu lay ñaanal wér bi yaram ak gudd fan ci barke Seydina Limamou Laye. waaw. Euh, day nit ku baax nit ku nga xam ne xol bi dara nekku ci. donc bésam bu tombee ak ay nii dañuy am njort bu rafet ni combat bi ñuy mënee dinañ ci am ndam ndax anniversaire ku mu tombeel day borom xol bu rafet. bilaay yéenewul nit lu bon yéenewul def nit lu bon xadar gépp ci dund ci ci ci dund euh, làmb ji la wax bu génnee géej bi mbubu sol boobu nay giri boobu.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 waay ëppal ëppal ëppal ëppal ëppal ëppal merci joyeux anniversaire Imam yal na yàlla dugal sa fan yal na yàlla wéral sa cër maintenant prix sur la demande de la presse dañu ko doon retirer su nekk deux minutes en français ñu dellu ginnaaw presse bi dafa am lu soxla français mais également nos amis sa waay dem jël fukki. Eh, fukki affaire xoolal. ñëpp ko nag. kenn ñemewul wax amul. non defal naa yow nekk woo gaal dem. non damaa teel a ñëw quoi. waaw ah, daa leen may mën nag. bii mooy cinq kaasam. instant yii dama siisu dama énervé. bii mooy cinq kaasam. xoolal lu mu tee xoolal lu mu tee mbër. bàyyi la mbër. mais mbër. noo gisee affaire yi. xaw ma dégg nga pare waaw. xaw ma dégg nga pare waaye jub après waaw. lekk doo wax. sa waay buy lekk du wax de. léegi dañoo ay gestes. jàpp <laughs> baa ma ñëw rek noonu. damaa entraînement jom fer damaa sonn instant bi baa ma dégg ko rek. woon quoi. <laughs> may ko bul tooyoo ba fii sant yàlla rek teewaay bi mooy ñëw ànd ak suñuy grand ngir lan intérêt làmb parce que tey làmb ku ci nekk ci nga am li nga yóbbu sa kër ñu xam ne tey làmb ji toogaay bi yàgg na ñu gis ni booy yi sonn nañ te ñoom grand ñoo gën a sonn parce que ñoom ay nit dañuy ñëw ci ñoom di leen diis ay soxla te dañuy yaakaar ci ñoom. kon tey boo toogee liggéeyuloo war nga mën a taxaw demander solution pour ñu utal la solution nga bëre tey loolu mooy si suñuy tànk di ñaan yàlla rek lépp lu fiy intérêt làmb lu ñu fiy kaas rek yàlla def tey lépp sotti incha allah. waaw. boobu defoon nañ ko mais lépp ci bataay bi la bokk rek mais tey boo gisee tey collectif bi la tey ñëpp def benn xam nga boobu boo gisee amoon na manque manquement mais tey ñëpp boole seen doole mooy wane ni tey. bu tay bi bu paasee di yaakaar nañ ni solution dina am. ñun ñu bëre lañ bëgg wax dëgg yàlla on ak ay mesures parce que am na ñeneen ñoo xamante ni ibbil nañ leen tegaleen ay mesures mais ñun pour pourquoi pas xanaa bokkuñu ci réew mi moo tax mesures yi lañ bëgg ñu teg nañu bëri leen yaa jëf rang ci piipar rang bi mu lay maas. <laughs> birthday to you. Birthday to you, my God. Happy birthday to you. Lucy Allez, on va, on va, on va.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 dellu si moo neex. allez ëppal ëppal ëppal. ëppal ëppal ëppal. merci joyeux anniversaire Diagne yal na yàlla guddal sa fan. yal na yàlla wér sa kër maintenant prix sur la demande de la presse dañu bëgg a doon retirer si nekk doon nañu en français ñu ne la. presse bi dafa am mission de français mais également nos amis de LFC et de France 24 ñu ngi fi. voilà après ngeen jël muy interview ak français après ngeen jël muy encore Dakar ak Bambey ngeen wax ak français voilà merci beaucoup les gars merci à tout le monde.